acca gars yi abonné leen bës cloche bi bës pouce like bi moo tax chaîne bi jëm kanam salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum àdduna yéen a ngi ci Mafta Baba talking again tey logo bi sama rakk moom ko defar mu nekk lu rafet trop ku ko ci soxla contacté ma boole la ak moom Mafta Baba la Instagram bi ak benn F tey ñëw ci découverte IS 814 mu nekk ndaarankulu fadrine di auteur compositeur ak beatmaker mu nekk ñetti casquette yu mu sol nekk lu yomb nag mais yàlla def na mu moom moom mu yomb ci moom xëy na ñu koy félicité ci liggéey bu rafet bu muy def ci rap bi so mu nekk koo xam ne dafa fës ci ci ci li muy def surtout ci ci wàllu beatmaker bi peut-être ñu bëri xamuñu ko ci moom moo tax ma ne naa jël facet boobu tey te bu dee rappeur bi moom ñëpp xam nañ ko mais bu dee beatmaker bi am na ñu ko ci xam ci ñi nga xam dañoo nekk ci mouvement bi mu créé nag loo xam ne foog ñu wax ko mooy Dakar Trap Dakar Trap nekk na loo xam ne maanaam ci beatmaker moom moo créé mooy un amul norme parce que booy def instrument musical dafa am ay norme mais moom ci trap bi trap Dakar bu mu créé Dakar Dakar Trap boobu noonu maanaam lijjantul ay norme musicale maanaam day def par rapport ak feeling moom lu mu sentir mu créer ko mais ci biir création boobu noonu dafa jël le les les les instruments locaux de la musique local sénégalaise surtout dans le sud si euh, euh, bu ñuy jël bu ñuy wax si sud bi joolaa yi moo tax may wax seen seen rythme musical la jël mooy seen instrument yi ñuy use mu adapté ko ci ci ci rab nekkul lu yomb ndax Fataa defoon na ko fi ci mbalax affaire yooyu noonu gars yi doon wax affaire yooyu naan fii affaire yooyu noonu mais moom réussir na def loolu te ñu bëri bàyyuñ ci xel mais dañuy dégg sonorité bi ñu xam ne doon alors que ça les la la musique joola euh, euh, la musique joola mais ñu xam nu mu doon quoi tey moo tax ma ne naa leen wax ne loolu la loolu la créé am nañu ko ci toppandoo tuuti mooy ku mel ni Hakill def na ko ak utiliser ay bongo c'est bien quoi parce que nit na ma bëgg toppandoo bañu ma ko mais booy toppandoo na nga na nga na nga na nga yóbbu mbir mi ci beneen niveau ñuy félicité kii di IS 814 indi la ñeen ñett ñeenti son benn bi mi ngi mi réew mu way ci lu garaaw utilisé na ci Dakar trap boobu ak euh, noos surtout noos déglu leen noos bi bu wér ak euh, son bu bees bi mu génnee mu tuddee ko quartier tuuti lay noppi pour rapport yëpp wax mais tuuti lay wax pour rappeur yëpp noppi sam devoir du nekk joo di reproduire ay copie afro original comme ñoom Fela Kuti fi du fi boote game bi yëpp la soppi déglu mbay donde moo ma ëppal ay profit seen gem bi ñëngande comme ne foo man bu tijji investir en nende nangu seen gem bi ñibbi sauvegarder say réew formater sa xel machine bi du bees day bàyyi séquelle topp ñu benn règle pour naaj sa gel foog double décimètre si décibel réseau bi bu Pablo la du Taqtawa fay comme mauvais payeur góor jigéen yey góoru soson public gu nayeur dekkal ger si Gambie indi holocauste seen xeex yëpp a virtuel foog all your sama flow ci moustiquaire yow nga noo may su suicidaire ci visitaire nooy tànge xel bu automatique lamiñ ñu M16 mandi ci bari su bi am sama identité noire pantit yu am jeez xeetu maa jëm bi gëtt geen like a Sanchez ba seen sound trap la jëm a test classique dinaa leen rey yéen ñëpp ba seen dese tragique père Karl hôpital te bu leer maa ngi coaché ci benn bis di leen tëj ci weer life is a game nga doote sa bopp CSC aw ma weekend ci sama job foog VSD dañuy fiiri ay gént may tegal samay cauchemar ci beneen tempête du désert man may wut coach naar parano comme koy xaat ñu koy sànni xeer même que may foog tu le temps du sama partenaire sori gars yi wet ak samay vis kapote si sama lax pour su ma noonee di gis rëccu yenn nit lu tax ma xamoon leen rek rëccu xol du ëllëg ci biir rek amoon peine yàppa photo même boo nekkoon mbàcco néega il baax ci nopp juif du neex enveloppe raam yi di ko teg ci benn lettre analphabète yi dina yegg technique technique sound am bëri coow seen flow yi down duñu make a pound para ñëw hurt your crown hate hater hater like but rendi I'm hater Do that your flavor like watching you fuck boy fuck flavor ñaata dëmm ak ñaata ci Give me the fos vidi ci poos ko si jàkkaarloo sàgg du bi poos bi daw ci kaw ak midlife. Nigga, mid life nigga munoo dundal sa bopp sa men Wait, nga défense bi wala We want bi si la We li fi The li ne sa blog la nga fag mun na ma tiital bégal na fan si ak ay daw ba léegi job bi mu ngi dóob bu ma nekkoon ak ñoom jot nañu sax maa leen di biital is is foog sa quartier ak sa chef de quartier I'm bad. ak sa bàjjanu fokk sa quartier ak sa chef de quartier fokk sa gox ak sa bàjjanu gox fokk sa quartier ak sa chef de quartier fokk sa gox ak sa bàjjanu gox fokk sa quartier ak sa chef de quartier fokk sa gox ak sa bàjjanu gox ay fokk sa quartier ak sa chef de quartier fokk sa gox ak sa bàjjanu gox fokk sa quartier ak sa chef de quartier ay fokk sa gox ak sa bàjjanu gox shit fak sa quartier ak sa sartu quartier wuu. fak sa gox ak sa bàjjanu gox wuu. ku xewul sa noos kenn daaxu la noos ku xewul sa noos kenn daaxu la noos million noos mille francs noos uno noos fëgg jaay noos ku xewul sa noos kenn daaxu noos ku xewul sa noos kenn daaxu noos. nos, millionos, nos, uno nos, fogijay nos. Sama 10 mille, million lopi. Sama liberté, prison lopi. Paa bi amul milliard, mais musuñu xiif. cere reer fonde fajar, namuñu biif. meer day feesal pañe, te paa bi du yor. kenn musu ko poñe, di fay ko bor. ñu ngi ci école publique, yow école privée. lu tax bu ñuy passé ngay redoubler soosal sa soos ñun ñu siim suñu cere noosal sa noos loo moom duñ la ko tere solal sa kos ñetti ab du benn beere lii def sa boos ci sa xel la du si yére ku xebul sa noos kenn daaxu la noos ku xebul sa noos kenn daaxu noos million noos mille francs noos unoon noos fëgg jaay noos xebul sa noos kenn la xebul sa noos kenn mille million uno nos, bëgg jaay noos am nañu dëxin gënal am nañu gënal amul li nga bëgg da nga yem si li nga am ku la gis jox la gëdd li ngay dund duñ ko xam dignité ni day nité même muy nit a ngi ci région yi ñeewul ki ne capital nit yor na ay milliards di jàppante hôpital eh sant yàlla buñ si tolle fi tey dox pas à pas doy loolu lépp ñu may ku ne foo ne na mooy sa njiglaay am nga lu neemee got moo yor muslaay ku xebul sa noos kenn dàqu noos ku xebul sa noos kenn dàqu noos million noos mille francs noos unoo noos fëgg jaay noos ku xebul sa noos kenn daaxu la noos ku xebul sa noos kenn daaxu noos mille noos million noos unoo noos police du décroché sapeur da yéex a ñëw nañ dee du raccroché te faible mën a ñëw am na ñu rusul jëw néew si biir koor bi yaar am na ñuy dingat seen sëriñ te dañu ñëw ziyaar jikko yu dul deñ ni feebar yu dul wër politique égal politique même bu nekkee sen cœur lampe du leeral xol bu ku iñaan di fay facture jappal sa télé xol nak lëmbal amna censure sa yu new mo yaangi joy sa bop mën na am minute bi ci top yow yaay doon ki si topp kor bi yar na yobu new mais amna fumu yem jiko day te amul fumu yem Ninga nga chirurgie te kanam ñaaw Ninga nga mel neexul la ni nga meloon mu ngi sa ginnaaw armé lu rëccu gis ay naqar lañ fa suul fay sa bor nga mer li nga leble baaxul kuy def pour ñu dimbali ay jaay xat ne ko yàlla yaana kuy def pour ñu gis ko ay gumba kuy def pour ñu wax ko da jàppale ay muuma bopp bu nare barke noppuy dégg ñoo ci sax mais ku dul dégg wax ju leer jarul ñu koy caax jooyu xol mën na gën a soxor yi feeñ ci bët am na ñuy mànd si deret ba pare denc dëkk nit buy xalaat dugg kees warul këpp kees aduna bi jeex na ba pare lan moo fi des lu tax suñu meeru marché yi ñoo dàq fay juuti lu tax ñi liggéey lu bëri rek a fi am tuuti yow ah sen keur boo yorul comme lire bu dogo juddu sa wax du compter bo amul chiffre ken du la tuddu xaalis lañu gëna sécuriser que doomu adama té nee nañ xaalis dañ ko def ngir doomu adama am ñu sen xaalis ëpp keur te sen compte du fess lu ba légui Afrique mënul am monnaie bu bess tuba am lu ko neex ci dëkku nit ku ñuul té nit ku ñuul mënul muñal benn nit bu ñuul trafic d'armes yu légal ci guerre yu légitime peram chon klasnikof ma guerre interstine booy sàcc sàccal milliard sinon kenn du la kaasal mu weesoo say jëf yowmal xiyaam leen du la paasal ni dina dugg safara ba pare yóbbaale mbooloo ni dina rate àjjana ngir mbir yu ñàkk solo armée lu boo gis ay naqar lañ fa suul le passé c'est le passé ba léegi bu mu jaam dogul bénéfice weesu wul yeewu di gis bakkan saa yoo tayle sa bopp jàppal ni tayle nga sa askan defet bi gën trist, triste mooy bi wàcc ba si say doom am ñu pare jaay seen dignité ndax simple com 4444 te yu indépendant wul ba léegi ma major booy ak sacrifice ci diggu géej gi daf ëggee nag jàmbañ pour mëne ñu en bateau nuyoo ñu càmmoñ sa last bis ñoom ñu ngi seen château di nga joy di nga triste orphelin soppi capital, capitaliste seen seeg chaîne seen galin de compenser, pas qu'un amul roubou am prix état bi pompé presse ni vulganisateur pour que ne mën free président de Dougou Djel, magistrat de Tud, avocat du que correctionnel bu ou le dug. diw buntu bu la neex mën nga fa feug na sen ceeb nin, yow nga yàq de la ñu bëgg prostitution intellectuelle palais ponti xam-xam nee nañ pousse la mais rare ñoo fi pointu institution public promotion canapé français yéeg ak économie bi ñi kidnappé Facebook du fay impôt mu ngi ingéré wu la indépendance ba légui tubaab yaa ngi inséré wu entente illicite ci kaw autoroute total péage city dia du ñu sucé goutte par goutte frank chimiste ci avenir bu crêpe alliance bi ak tubaab worul bu joxe annulaire rongo ñu badol la si tul ciéré bour kese ma mëdu jóob Fay police day def dese gis nañ fi justice à des vitesses après je nous Colobane yi am kaso bu innocent armel bu bëri victime d'après loi instant ki rey say def lu crime gis nañ fi pétrole ak gaz ba du fi indi guerre lutax ba légui dossier Petro-Tim mënul leer ñaari këyit ben xol man rew nga dëkk da ngay tardé boy jangalé salaire ya fa ñëk boy topando yonenti bi religion importée entre cheveux ak burka lan lañu importé nit du jité rew té yorul deret si papay Basiru Fay ndax million jar

Shaughnessy Ku la bëgg nga def ko non. eh ndeysaan jugal nga dem sa yoon suma ndaanaan xam naa ni naa la manqué ay waay yow tamit ding ma manqué bu fekkee lim la wax daf la vexé mun nga dem sa yoon gaawul bu fekkee lim ñu dund daf la stressé Mun garam ni bir yorul Me mic tristes, tristes Pai maximo tristes Me mic tristes, tristes Pai maximo tristes Hey, sa ma wachten van met die Te dan gauw met Ben je moet je refie kom in yeah Demal nga ñibbi mo gën ci yow Hey, tebul ñëwaat Mă păi spune-mă de gâcio Oare ne o holoa Sunt meră-ne-o apă vites Te bahul Yang dem ba fi tristez Me graul. fekele m la oax, n-am la vexe Mângărăm să iau în gaul Fekele-ni dundu, n-am la strese Mângărăm ni biciorul Me mai tristez tristez Baie maak samo tristes Me maak tristes, tristes Baie maak samo tristes Alright You hunt the silent, they connect them Yeah, my man, you're not your problem I'll tell boy, yeah

songu stade ni ko boy di defé ni ko dib di defé ni ko akhlu brik di defé ni ko ñeneen ak ñeneen defé parce que bit yu bari mo leen koy jobal mais en terme de rap tamit mën nako ko ama lenn mo ci dess moy fit bi te yaakaar naa ne bu la yàlla joxee talent bi nii la ci des bareetul quoi na song grand théâtre song stade yi song sises parce que tamit loola fi des ah du musique bi kese mais la ci des mooy la nga ci def pour dundaat ci xam nga yaa ngi sant yàlla je pense que ne yaa ngi sant ci li nga def parce que biir mékki mi yaa ngi ci meg mani mais gën na la yaatal quoi gën na la yokk fit bi yokk ci stade bi stade yi quoi pour que affaire yi gën a yaatu. Mafta Baba Talking la woon ba beneen yoon ak beneen artiste. gars yi abonné leen bës cloche bi bës pouce like bi ndax mooy tax chaîne bi jëm kanam.